asalaamaaleykum mbooloo mi tey ñu ngi daje fii ci Ndangalma ay gox yu bëree bëri li commencé Mboro kër Samba Kane Ndindi Ndulo ba kër Baba ci Taïf di jooytu encore réforme bi nga xam ne Macky Sall moo ko fi dugaloon depuis 2018 booba ak léegi nag ay coono kese lañ ci gis wax nañu guddi wax nañ bëccëg sonn nañu kenn tontuwuñu Macky Sall nag li ñu koy ñaan mooy benn na fi jëlee ministre bi fi nekk mu Serigne Mbaye Thiam parce que ñëw na njaareem ñëw nañ njaareem képp kuy takk ndombal tànk ñëw taxaw ne ko réforme bu baaxut mën na jël ay engagement avant mu egg jam ñaari sànni na ko na ko fi jëlee jëlee fi sëriñ ndaw ndax boo mi ngi teew ñoom kenn jëlul benn engagement na leen fi jëlee ñoom ñoom ñooñu li des mooy monsieur le président comme ni nga defee ak waa SDR ci région du nord muy Louga Matam Saint-Louis loolu lañ bëgg def ko ak waa teg fii Diourbel ak Thiès parce que sonn nañu sonn nañu góor jigéen mag ak ndaw gis ngeen borom bijaaw yi nii jóge fu sori jigéen ñi jóge fu ñëw di jooju wàllu ndox vraiment son nañ bëgg nañ daal nga retiré fii carrément delloo ko ñi nga xam ne ñoo ko yoroon ndax yor nañ ko sans problème Asifor mosuñu am benn problème mosoo dégg benn maasu Asifor ñu kaas ndox mu manqué depuis ak waxtaan ak ñu ak léegi ñun waxuñu sangu mais fu ñu toll ñu ngi marche ñu ngi yuuxu ñu wax ñu ngi dem ci CRD mais dara dafa jot tey nag fii li lay ñaan mooy nga jëlee fi réforme jir mu gën a gaawee benn bi des mooy dogal bi ñuy jël mooy monde rural bi doolu ñu fay benn facture ndox benn opérateur privé ndax lii Aquatech def Sénégal bu doon société sénégalaise moo ko def Canada kon jël nañu ko bu yàgg dafa def ñaari fan évaluation ñuy wax bu ñu ko defee mënul sax 1 sur 20 jaam xam ne évaluation yi bu yàgg nañ ko arrêté doolu ñu fay benn facture nag bu jóge ci Aquatech monde rural bi yëpp kenn doolu ko def xalaatuñ ko jóge jukk jógee ba Mboro dara soxluñu lu dul le départ de Aquatech parce que ñun jigéen ñi sonn nañu ndax ñooy root ñooy fóot ñooy raxas ñooy togg ñooy def lépp Aquatech ñëw ba mu dëppi ba nga xamante ne installé na ci dëkk yi ba léegi ñun ay problème la ñuy jànkoonteel sonn nañu lool nag sonn nañu damm nañu dee nañu Aquatech na fi jóge na dem na dem ñun doyal nañ sëkk ci moom na dem a dem a dem may wax nag may wax nag borom kër yi muy jigéen ñi fay ndox ak góor ñi fay ndox bu kenn fay sa facture ndox kenn fay sa facture ndox ndax sonn nañu ndax suñu ndox la ñu utiliser jël suñu xaalis yóbbu ko def ko ci seen i gafaka ñun ñu bàyyi ñu ci ci misère dañoo sonn ci misère bi nag li ñuy dund métti na mbay jaam nañu déglu ministre bi nañu déglu parce que jigéen ñi ñoo ko fal te jigéen ku mu fal nga falu kon nañu gestu ndax sonn nañu Macky Sall dëgg nañu parce que dégg nañu ay yoon yooni yoon na réagir parce que jigéen ñi sonn nañu damm nañu tàyyi nañu. sunu maraîchage nekk 12 hectares ak waateeg rey na ko ba mu jeex ay partenaires yaa dafay ñëwoon ay partenaires yaa ak Daaru Diop Kër Ousmane Mbaba Garas yëpp ci maraîchage dañoo jënd ak waateeg rey na ko ba mu jeex ndax bi mu ñëwee dañoo fekk ñu may ñu séddaloo yokkal ndox mi ba pare soobe yi foo xay bii nii sori wan na mais lépp wàcc waat na ko amatul ndox suñuy garab dee na suñuy tool dee na ñoo ngi delluwaat ci. ci ci ci gaal yi suñu gale yi gone yi doon dugg ñun ñi ñëpp ci àll bi lañ doon lañ doon dem ba yàgg ñu ñëw toog doon bëgg liggéey aversi suñu xaalis ci douze hectares yoo xam bii ni famille moo ko mooman ta tasaate nañ ko ba tasaate nañ ko di delluwaat ci ci ci ci àll bi euh, dugaat ci gaal yi ak suñuy gone tukki benn partenaire moo ñëwoon di ndibali benn partenaire ñu ko lekk te loolu cependement nañ ko xoolaat réew mu yëngu ci maraîchage nga ni maraîchage dafay jógee kon xamul loo fi bëgg def loolu ñooy suñu doléance moon tax fu ne dana fa dem fu nu war a jóg di bañ dana fa dem incha allah jërë ngeen